boo jàppoon ne ne ñaar yooyu nga tudd ay sàcc lañ boo xam ne ay sàcc lañ boo jàppoon ne ci lépp ñaar ñooñu ay sàcc lañ ñu bokk leen tëj ñu ne kenn ki mënta dem laaj réew mi ndax guuta dafa def guuta maanaam dafa tooñ ñu war ko ate mais moom au lieu mu yónni ku ne ci biti mu yónni ku koo xam ne sàcc la ni moom ci ci léebin kon sàcc bu yaakaaree morom ma ci mu génne ko ca fa ñu def sàcc yi mais c'est une erreur xanaa ñi nga xam ne ñoo ànd ki nga njëkk wax bare nañ te nekk ci biti loolu sax c'est une insulte pour wax ne yéen ñi ci biti du ngeen dara non am na ñu mën a na ñu ne ci biti ñu baree bari ñenn ñi di ay cadre ñenn ñi ingénieur ñenn ñi di ay ñoo xam ne war nañu def l'affaire parce que wax dëgg yàlla yoon ni borom tànk yu métti yónni ko ku tànk mi méttiwul moo ko gën. japonais stratégie la bu mu bu rek pour euh, peut-être euh, am ci ben objectif bu précis. waaw lolu day kërël byzantin la byzantin xam nga dañ doon daje pour philosophie. Mhm. ñi vérante ci sexe des des anges ndax malaaka yi góor la ñoom jigéen. Mhm. ñu naan góor lañ ñeneen jigen lay ndax nga xam ne góor lañ nangam lañ nga bu doon jigen la nangam mhm. ci lolu ngay ki lan lan ma ne sëriñ bi da ngay yónnee yónnee bi lu mu laaj dem ba Tamba dem ba Kédougou dem ba Nangam yónnil ki mën a dem waaye ki ñu yeew ni yow nga ne ko yooyaay dem nu muy